asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi fii ci Fiara bi euh, Fiara bu ngeen ko déggee nag mooy ndaje mu mag mi nga xam ne ah kenn ku bokk ci axlu làmb daf ci nekk une cheville ouvrière muy Pape Abdou Fall ànd ci tamit ak structure yu bari ngir lan dajale ñi nga xam ni dañuy yëngu ci secteur yu am solo muy wàll mbay wàllu càmm ak lépp lu nga xamante ni nii rek luy ñore ci réew mi la waa doomi réew mi di ci yëngatu mu nekk ressource animale wala boog mu nekk ressource agricole ku dugg fii dinga gis ne Sénégal liggéey bu am solo mi ngi fii am ay jàmbaar ñi ngi fii nekk ci tool yi nekk ci géej gi wala ñu nekk ci li nga xam ne moo di càmm gi di ci def liggéey bu mucc ayib loolu nag moom la ñuy fësal ci fiara bi a ah, mu nekk liggéey bu nga xam ne dañ ciy jaajëfal Pape du fa ak ay partenaire am waaye jotaay bi xam ne làmb moo ñëw wàlliyaan si ci lan moo xew Assane bu Bawol production moom moo jël làmb ju mag bu war a am le 3 juillet ci diggante Tidiane Faye le professeur de l'Ansar ak kéwal bu Bawol tuddee ko nag Pape Abdou muy lu rafet ndax Assane bu jëlee làmb ni dama koy delloo président Pape Abdou daf koy delloo njukkal ci liggéey bu rafet nga xam ne mi ngi ko def ci làmb waaye tamit ci boot bi mu boot ay rakkam rogganti leen ànd ak ñoom jiital leen topp ci seen ginnaaw ba tax na lépp lu Pape Abdou xewle day mel na du moom mooy organiser da ngay gis promoteur yëpp laxasaayu jël bés bi yanu ko def ko mu seen bés waaye nag Assane ni Pape Abdou li mu ñu defal ñun mënuñu ko ko fay li ñu koy fayee rek mooy la mu daan def di jël drapo di ko tudde ay nit ñun ñu jël drapeau tudde ko ko ngir sargal ko kon loolu lu am solo la ñu koy def nag sous la supervision du CNG de lutte ndax Thiam mi ngi fi toog léegi la fi la docteur aline Sarr jóge moom tamit ñëw seet si woon ñoom Pape Abdou Fall waaye kàddu yu mu fi yëkkati kàddu yu rafet la ndax lu mu ne nii laa bëgg ñaata lay jar ñu ne ko déedéet doo ko fi jënde ndax yow président da ñëw ji nga xam ne doo ñëw ci fiara bi soxla fi dara muy jóge ci sa poche loolu président Alioune Sarr léegi la fi jógee moom a ko seedeel kon nag ñuy jaajëfal Pape Abdou ci lu rafet loolu yàgg nga ko def ci axlu làmp kon nag Assane jaajëf ci xalaat bu rafet bi jaajëf fàllu ci taxawaay bu rafet bi ak ñëpp ñi nga xam ne dañu bokk ci seen kuréel te jël Pape Abdou jiital ko te fokk ko ah cam duñu démarrer mukk te joxuñu la ndax lii bu ñu ko amee sañ-sañu def fii nga ñëw teew ci loolu dafay wane ni Assane jaar na fa mu war a jaar pour mën a def présentation affice bi war a am le 3 juillet. jërëjëf. mais El Hadj Malick ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu président Pape Fall. Eh, di rafetlu nag vraiment jataay bi fi ñu defee lii nga xamante ne bi muy wàllu affaire affaire làmb ñu indi ci eh, fiara bi fiara nag ku ko wax mooy sàmb ak bay te loolu jàpp naa ne lu soxal lii acteurs yi ne li ñuy def ni acteur yi ndax acteurs yi ñu bëri yëpp kenn ku ci nekk da ngay gis ne am nañu ay projet te seen projet yi mi ngi jëm ci sàmm ak mbay ñoom ñëpp na te loolu effectivement da bokk ci li développé réew donc vraiment rafetlu lañ ko di féliciter encore une fois Pape Dou Fall bi nga xam ne dafa bokk ci axlu làmb ba pare nag di di gérer lii di gérer lu tol nii nga xamante ne bi vraiment boo fi ñëwee di nga fi gis bépp xeetu meññeef ak bépp xeetu jur vraiment macha allah encore une fois de plus euh, au nom de au nom de président Bira seen Pape Abdou Fall vraiment CNG ñu ngi lay féliciter bu baax ci lii. di wax rek ne euh, li ñu def fii yàlla dogal na ne euh, promoteur bi dafa indi ñaari xale yoo xamante ne bii xale yu am yar lañu xale yi du yàq làmb la ñu donc jàpp nañ ne dina nekk loo xamante ne bi lépp dana rafet lépp dana jaar ci yoon donc euh, suñu teewaay fii nag comme ni nga ko waxee rek euh, dafay fekk ne effectivement promoteur bi def na li mu war a jaar fi mu war a jaar moo tax ñu ne ñu bàyyi lépp ndax tey ji làmb am na tëngeej joa te terewul maa ngi dama ñëw teewe donc loolu lépp day wane ne rek làmb mi ngi dox ndax tey ji tëngeej la am suba dinañ am ñaari journée Iba Mar ak euh, arène national yëpp boo xoolee date yëpp jeex na kon lay loolu day wane rek làmb mi ngi dox encore une fois de plus ñu ngi ciy remercier di ci féliciter président Bira nga xamante ne bi vraiment mélangé wul benn effort aucun effort pour que lamb dox pour que xale yi mën a bëre tu as vu tey it nag encore une fois de plus ñu ngi profité ci occasion bi pour di ñaaxaat mbër yi ne ñu xam ne que ne làmb ñi ñoo moom arène bi ñoom ñoo ko moom donc bu ñu ànd ak seen nit am bis nañu fexe ba waxtaan ak seeni nit ba nga xamante ne bii eh, ndax sport la daan ak daan rek fi donc lu ci waay am rek ngay ànd ak say ak ànd ak say supporters xam ne loolu la sport la noonu la demee jërë ngeen jëf Malick foire internationale de l'agriculture et des ressources animales ñu ànd ci ak Pape alors Assane mi ngi nii teew Fallou mi ngi nii teew Pape Abdou sax toogaay bi mu toog nii xam naa ni yàgg na ci moom ndax li muy coordonné bari na dadi woon sax nañu bàyyi rek fàllu mu doxal ndax moom cër boo ko jox da koy jël jelloowaat ko ay rakkam waaye nag a ah, Assane da def lu rëy jël làmb ju toll nii tuddee ko Pape Abdou lan moo ko waral. jërëjëf maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar bu baax di nuyu Thiam CNG di nuyu di nuyu mon moo mon frère a Abdou Fall di nuyu Fallou Ndiaye sama frère di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan mais Malick boo gisee ñu def lii euh, président daf ñu yàgg taxaw yàgg ñu jàppale ci lépp suñu amee bis da ciy dem ba jeex gën ñu ci sonn ñu ne nag il temps ñu delloo ko njukkal li muy daj ci doomu aadama yi ñu wan ko sénégalais yi ne kii mérito ñu delloo ko njukkal wallaay bi ma defee affiche bi esthétique ko ñi ci bëgg bari na lool koo wax mu ne kii de lii ngeen def drapeau bi yelloo na ko macha allah wallaay la si ñu am ci mbégte samay mbokk ba ci sama yaay wallaay al azim da ci kontaan parce que day dégganteeg man di dégganteeg Pape Abdou donc lii daal dañuy ñaan yàlla mu àgg ci jàmm yéene nañ ko wallaay al azim lu dul lii parce que jàmbaar la te ñafekat la te gëm na boppam boo àndeek ay ndaw nag di leen xiirtal sa bopp gi amuñu lu dul làmb ji mu nekk teraanga ñu jël ko jox ko ko côté bu nekk nag taxaw nañu kon bu ñu amee bis bu mel ni rek ko delloo njukkal sénégalais yi xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi Fallou Ndiaye aussi di ci doxlu nice nekk jàmbaar nekk nit koo xam ne aussi ku gëm boppam ñu bokk li ñuy def maanaam daal ñu mën a liggéey gëm seen bopp nangoo liggéey ñoo ànd yàlla nañu yàlla defal jàmm waay jaajëf ba le allah. macha allah kàddu yi am na solo Pape Abdou ku nekk sekk na ak yow teraanga ci biir làmb man mii di wax dafa jël bës bu rëy tudde ma ko nima ma Malick baa ngoog muy diggante Tonnerre ak Moussa xam nga ni man mi ku ma tuddee drapeau séntu woo ca dara waaye daf maa tuddee drapeau ba pare yeewal ma nag wu rëy ni ma teral ci sa ay gan loolu moo koy seedewaat ni ma loo ca am tamit jëlal def sa poos vraiment ba ma tuddee drapeau laa gëj am drapeau ma koy jaajëfal drapeau ba jeex mu décoré ma man ak Max Mbargane yóbbu ñu jojo moobul jox ñu lal yoo nga xam ne ba léegi moo tax fu ma bu ma bidantee rek moom la jox ma ngandam télévision ni ma boo tëddee dee ci seetaan télé bu la dara raw kon loolu dama koy seede ci kanamu askan bi yëpp te yàgg na defal nit teraanga ci biir làmb ji yàgg na jàppale ay nit ci biir làmb ji te dara boolewu ko ak coow ala ala ala limite bëggul sax ku ko wax mais nit ku baax rek boo koy wër ba yam ci moom sebo nga wàññeeku mu ànd ak nag ay gor fàllu Ndiaye mii jiitu si Fallou ku ko xam-xam ne danga daan Fallou daa naqari deret déedéet naqariwul deret daa bëggul ku ko yeb liggéey la xam ñafe ak tamit ku ko jox cër mu delloo la cër bi nekk ci làmb yi tamit di ci def liggéey bu am solo ñu jël Pape Abdou jiital ko Pape Abdou jëlaat lépp delloo leen ko kon fàllu bu Assane jëlee bés bu mel nii tuddee ko Pape Abdou dafa mel ni yéen ñëpp yéen a ko def waaye dafa mel ni yéen ñëpp la ko tuddee tamit champion Tidiane Faye di nuyu président Pape nuyu Mara nuyu monde daal yëpp di nuyu Sow Fall bi muy jàkkaarloo bi menacé. Euh, grand Malick nag euh, yaakaar naa drapeau bi Assane def comme ni ko waxee rek suñu drapeau la ñun ñëpp. li tax mu nekk suñu drapeau ñun ñëpp mooy dañoo xam Pape Fall bi dina drapeau bi ci élégance am. ci vraiment bëggum bëgg ay doomam ay rakam ay jarbaatam ay xayitam mooy ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci làmb ndax yaakaar naa moo ñu mag fuuf te lépp lu mu am wala lépp lu muy def nañ ci laaj xalaatam wax ñu loo ci bëgg nuñ ko bëggee rek noonu koy defee yaakaar naa kooku ku joxul nit cër doo ko def te su ko neexoon ne ñi duma seen ay moroom àndandoo maa ñoom ci dara du ma dénk dara mais xoolul loolu ci élégance am ci kattanam ak doolem ak yërmandeem ci la jëlee ay rakam ak doom buuf leen di leen jàppale kon duñ def buñ ko jël drapeau vraiment bu àndoon def nañ drapeau ñu bàyyi ci ñëw teew ndax wax dëgg yàlla ba ñuy ànd ak moom ba tey rëccu ñu li doon ànd moom ndax modèle la référence la ci ñun ndax nit koo xam ne ni heure boo ànd ak moom lu baax lay wax lu baax lay def yëkkati ay teraanga di jàppale doomu aadama yi kon yaakaar naa ñun jàng rek la ñu war def ci moom roy ci moom ba yaakaar naa lu bay suñu comportement dina changé ndax moom modèle la de référence la ku mel noonu na tey ji yaakaar naa bu ñu jiitee duñ ma lu sante ko yàlla bu baax a di sant tamit monde lamb yëpp di sant njabootam yëpp di nuyu njabootam yëpp di sant Assane Ndiaye bi nga xam te moo def lii ndax vraiment initiative bi rafet na xalaat bi rafet na te it koy def mérito ko te it koy def moom moom li mu ko jox kon yaakaar naa dañ jox ñëpp rendez-vous incha allah lan tuwaa incha rabbi ba maar jox ñun ñëpp dañ teew ci kàttanu yàlla di ñaan yàlla Assane lépp lu ci Euh, njort lépp lu mu ciy jublu rek suñu boobu defal ko ci lu kawe njortoom loolu lañ koy ñaanal sax ndax vraiment rafet na ci kàddu yu rafet yooyu léegi nag balaa may ñëw ci ñaari mbër yi dañuy jox Pape Abdou Fall ndax xam naa ne fi mu nekk nii toogatul xel mépp a ngi ci fiara bi bàyyil ñu daal di koy jox ah. sama gars yi maa ngi leen di ziar affaire bi na ah. waaw euh, maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm ñu fi teew ñëpp jiital ci exposant yi nga xam ni léegi mu mot trois semaines maa ngi ak ñoom di leen masaw parce que collaboration yombut euh, di baalu àqit waa élevage parce que dañu commencé woon seen défilé kii kan la sama yaayu mère Fat Ndiaye waaw kii moom suma yaay la Fatick la nekk kii kilifa la nekk ci groupement de promotion féminine gis nga leen lii mooy Sénégal ñii ñu nga ne ba Kaffrine ñëw participer ci FIARA bi ànd ak ay njabootam waa Casamance a ngi fi waa Sédhiou waa Kédougou étranger yi moom ñëpp a ngi fi di gërëm champion yi fi toog di gërëm suma xarit yi sama njaboot gi nga xam ne ñoo fi teew di gërëm it Assane ci teraanga bi ma defal mook fàllu gërëm képp ko yaa ngi ci làmb maa ngi lay gërëm di la sant di ñaan yàlla bis bi yóbbu ñu ci jàmm xam nga yàlla moom dafa yéeme ay mbir da ngeen a toog fii léegi suma benn xarit ministre de l'élevage di ma woo ma ni ko ñu ngi def concours bi mais dañ ma tuddee drapeau mu ni ma waa maag yow ay ànd ma ni ko amul problème tey du doon moom kot incha allah bépp xarit bu ma am ngay kilifa ci réew mi danaa ànd ak yow ñu jiitle bu neexee yàlla ànd ak yow ñu dem ci bis boobu di ci woo nag képp kuy promoteur jiital ci aussi suñu mag Gaston Mbengue Luc Aziz Dieye képp koo xam ne rek yaa ngi ci làmb ñu ngi lay woo ci bis boobu ensemble euh, honoré li nga xam ni suñu frère suñu nawle Assane Ndiaye moom moo ma ko tuddee may jël nag bis bi yëpp teg ko ci monde élevage waaw dama jëlaat drapeau bi ñu jox ko képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci élevage yéen ñiy défilé Kocc Sangomar bis bi ñu ma tuddee dama ko jël teg ko ci seen loxo donc ne élevage bi yëpp mobilisé wu incha allah. c'était arène nationale mais never amul problème day dox. yàlla na yàlla dolli jàmm que le man nag maa ngi leen di faussé compagnie élevage ngeen jàpp ni nag bis bi seen bis la bu soobee yàlla képp kuy nekk ci élevage maam Ibra ñu nii sax xaaral ñu jox maam Ibra dama élevage ay gor ñoom ñoo koy def ay garmi ñoom ñoo koy dem ay jàmbaar ñoom ñoo koy def ay ndaanaan ñoom ñoo koy def ay xale yu bëgg réew ñoom ñoo koy dem ay xale yu am passion ci l'animal ñoom ñoo koy def kon tey boo leen tuddee bés yaakaar naa ne buñ la wuyusee di nga xam ne wuyusi nañ la yaay booy juufa ñoxobaay li nga wax léegi dafa am solo parce que dañoo nekk ci contexte bu doy waar bu nga xam ne tey jii guerre ba am ca Ukraine moo ko indi lépp yokk dund jafe lool booba ba léegi ñuy wax bay dundee te mënuñu koo jëfe te moo ne de tey feebar yi am yëpp amul woon romb na la léegi ñu ne la daanu na dee na def na malaise jamonoy maam amul woon ndax booba ñalang la ñuy dunde cere mbuum cere baasi ah, cere ju am dimb yooyu lañu xamoon cere ju am gajaangaaku sëpp loolu lañu xamoon daan lekk-lekk gu nga xamante ni lekk gu sell lay doon cere ju ñu defu sëpp ratt ci gétt gi sott ci nga lekk loolu lañ daan dunde laax moom lañ daan dundee moo tax mag ñi dañoo wéroon waaye léegi lu mu gën a niin bat gën a épicé gën a sale moom la ñu gën a bëgg te moo gën a bon ci ñun kon nañu dellu ci li maam bàyyi woon fii bu ñu bëggee am wér gu yaram kon nag fiara bi yéen mbër bu yaboo ngeen dugg fi ndugg mu baax te xam ne li leen di may doole daan may doole seeni maam te daawuñu jëfandikoo benn produit mooy lii nga xam ne moom la ñuy bay ci réew mi kon nag nañu bay dunde ndax vitamine kese la léegi nag ñu ñëw ci ñaari mbër yi nga xam ne ñoom ñoo war a bëree drapeau Pape Abdou wax na leen ko de drapeau jàmbaar ngeen di bëre drapeau self made man moom ngeen di bëre drapeau homme de défi moom ngeen di bëre quelqu'un qui est parti de rien qui est allé aux États-Unis se battre xoslu ñafe muy metti lool sous la pluie sous le vent sous la neige il s'est battu di doomu Tiwaawan di ku nga xam ne gëmul ku dul Cheikh naa Cheikh Saddu xayar nekk yi tamit ku nga xam ne dafa nekk ndaw foowe lii ngeen di foowe muy sport bi muy football Hans Peter Briegel lañ ko tuddee woon Briegel di woon défenseur allemand bu nga xam ne lu taxaw ci kanamam mu mu la kon tey Pape Abdou ñun ñi ko xam xam ne vainqueur la musa doon musul bëgg defet ci lu mu musa dugg ndam rek la ci musa bëgg moo tax jom lay demee ak fit ak fulla ak fayda fiara bi wane na ko ku nga xam ne da nga daan exposé tey nga dem bay organiser loolu day wane ni ah nitu ambition nga nitu defi nga ñu lay ñaanal yàlla guddal sa fan yàlla yàggal na sa kanamu njaboot fiara bi nga dem ba ni mag ñi xoole ba ni Pape Abdou ñoo doon ànd ak yow di jiite tey yaa ñu doy jiiteel yàlla na nga dem ba xool say rakk nga joxaat leen ko ci noonu jikko tey dañoo nekk ci réew mu nga xam ne doy na waar lool jeunes yi dañu commencé perte ay repères te boo perte repère dañ lay woy ay nit de valeur pour nga roy ci ñoom taalum réew sànni xeer xeex du loolu mooy defarum réew liy defar réew moom mooy liggéey ñu am fulla ak fayda ci suñu bopp te xam ne les politiciens yii di ñu utiliser ils n'ont qu'une ils ne sont qu'une minorité am na ñu nga xam ne taluñu leen ñi nekk ci fiara bi ñu marche ñi nekk ci fiara bi ñu sànni xeer ñi nekk ci fiara bi taluñu xeex li ñu tal mooy liggéey dunde dundal seen njaboot je pense que ku nekk ci loolu doo am jotu dem di xeexal kenn man de duma feccal dof mu toog loolu fa la ñàkk fayda mën a commencer ils sont une infime minorité kon tey waruñu jóg di coppet ci biir di donc ci bii les politiciens sont une minorité dans ce pays mu xam pouvoir mu xam opposition waruñu nekk di jël réew mi en otage nañu bàyyi ndaw ñu ñu dem liggéey jërëjëf ayca ñu ñëw ci ki nga xam ne tey moom mooy Tidiane Faye le professeur de l'Ansar waaw salaamaaleykum gannaaw bañ sant yàlla jël suma ma xam ne sant ñaari waajur di nuyu sama tonton euh, Malick Thiandoum. jëlal bële di jëlal bu ma ba teel la waa di ziare Sénégal yëpp di ñaanal yëpp jàmm di ñaanal jàmm bu baax a baax baax parce que comme li nga wax rek li nga tëjee la ñu ñëwee. suñu Sénégal bi jàmm moo ci xaj. dañu ñaan yàlla yàlla wàccee fi ndox mu sedd bu baax a baax a baax. merci. parce que jamono ji fi ne changé na changé boo xam te ne jamono ji lii war na fa war na fa jub. VRL yeeg yooyu yëpp. merci dimbale ngir yàlla. parce que fii mii Sénégal ñoo bokk benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar dëgg loolu lay problème ñi ñaanal ñëpp jàmm rek di waa axlu làmb ñi ñaanal ñëpp jàmm jërëjëf maa nga wax ci làmb ji lu tax tey Assane woo la ni la kéwél laa la bëgg a jox nga ni kon na ñëw lu mu gën a diis gën a saf gën a nekk ndaw gën bëgg na Malick dimanche boo toog bëree ko yaa ngi perte mhm. dimanche boo toog rek bëree ko yaa ngi perte te kéwél mbër la ndaanaan la suñu doxee suñ combat maag moom bu Assane Ndiaye d'accord ak Max rek dama ne ko amul benn problème noonu la demee. ndax xam nga bu baax adversaire bi nga jël. waaw non loolu amul importance si man man li am importance man li ma yor laa xam. Hmm? waaw. leçon de lutte ki nga xam ne mooy kéwal le 3 juillet ci bés bi ñu tuddee Pape Abdou Fall. waaw ñi ngi ñaan rek ñi ngi ñaan bu bés ba yàlla ànd ak ñun defal ñu ndam incha allah rabbi. Hmm. waaw bés bi ñu tuddee Pape Abdou Fall loo ciy wax. waaw sant rek. Pape faa moom day liggéey ak sama patron di waa ONFP di Souleymane Soumaré xam naa ne sax tey dañu ñëwul samedi samedi bi fii nii waaye ku ne xam ne ñooñu de moo fa amoon samay liggéey boobu koy woo si dañ koy gërëm di ko parce que bi gars yi jaaxle si leader yi euh, promoteurs yi moom lañ gis mu ànd ak ay rakam ñoom Assane Ndiaye ñoom ñoom ñëpp daal kon dañ koy ñaanal jàmm ñaanal suñu bopp jàmm ba bés ba di woo ñëpp rek ci combat bi ñu ñu bu baax a baax di ñaan sax woo sama patron bi naan Ndour mu ñëw jàpp si combat bu baax euh, Souleymane Souare maa ngi koy ziare di ko ñaanal mu ñëw jàpp ci bu baax. di ñaanal ñëpp daal di nuyu nag sama maam Alioune mi nga xam moo fi jógee di ko wax mu jàpp ci bu baax di nuyu sama mbokku si Tidiane Faye naa si naanu jokkaanu nañu yàlla layaan ñu koy nu ndam tàmm combat si nekk. mi fa kéwil fekk inda maa fi mu ngorom jëm ngorom wàcc incha allah rabi région de Fatick département de Foundiougne arrondissement Djilor foofu. fof commune e Djilor fof mais heɗa noon ɗum tamtama combane ko in mafa kewel jongojo hatta looy wax kewel mbi toog waaw kewel dañ koy ñaanal jàmm rek ñaanal suñu bopp jàmm bis ba lay am bis yàlla moo ko xam dañuy ñaan te jàmm sabablu la am ñi ngi sabablu dañuy ñaan yàlla mu ànd ak ñun si bis ba incha allah hmm. dafa saf saf dafa mën a xeex ndax Tidiane Faye ñi mën a taxaw raak ak kewel mii ma gis nii Malick bientôt ma bëre 30 combats musuma bëri ku tolloog man ñaata nga ma lan kon kon daanaka man du ma ne duma ak ma minimiser adversaire du ma xel dama koy nangu li mu yor mhm. bu baax a baax a baax baax ku ma jox cër la nag mhm. ku ma jox ku ma estimé la parce que doomu aadama olof Njaay mi wax ne wax sa mbaax waay du mhm. sa mbaax dara bu amuloon qualité doo ko jël non non non non ba pare yar bi nekk si moom kere leen ak leen leen nañ yem foofu daal jërëjëf jërëjëf di leen ñaanal yàlla xare leen ajana ah loolu du lu gën cim réew réew dañ koy pencoo waxtaane ko waaye xeex a xuloo fajul dara jàmm ci la lépp xaj bu jàmm amuloon woon fi arab yi du mën a am kon yàlla nañu nekk ci jàmm ay ta bismillah yaa ngi ci bés bu rëy waaw bismillahi bi bi mënuñu ko dellu. xaaral ndax gars yi dégg waaw bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yeneen bi ñooy sant suñu ñaari waajur bu baax. waaw di sant Sénégal di ñaan yàlla Sénégal jàmm yàgg fii. waaw di sant le promoteur Assane Ndiaye di sant Pape Abdou Fall di la sant père. maa ngi lay sant Kër Malick di sant Sewul Fall di ñaan wér di ñaanal sama adversaire wér ba le 3 juillet di ñaan yàlla ndam ci kawam mais adversaire bi nga jël adversaire bi nga jël. Mhm. ah Tidiane Faye ñu koy wax le professeur de Lansar di ndaanaan lool. Mhm. jël bu ne daan na ko fi mhm. man de keroog ba mu daanee Jaguar ca Kaolack damaa yuuxu. xawma ma ba jël boobu ba léegi mënuma koo qualifier ndax xaw ma lu mu tudd. Mhm. façon bu nekk daan na ko tey ñu jox la mbër mu am expérience macha allah mbër mu mën a bëre âge macha allah jiitu la ci làmb lu tax nga accepté bëre ak moom. non comme ni mu wax rek. waaw ndaanaan moo neex a bëreel. Mhm. dama xam ne Tidiane ndaanaan la. te dafa am qualité yoo xamante ne dafa ne siman ci wàllu bëre feeñul moo tax ma bëgg a jël Tidiane fay mii pour wone ko ci. kon doo taxaw xeexal tiijaan da nga bëgg a bëreeg moom ndax li ñu ni daa mën a bëre. non combat bi du ma ci xeex. ah waaw damaa bëgg a ñëw wane bëre quoi. parce que moom daanaanu bërekat la bu ñu koy wootee la professeur. waaw léegi looloo tax ma bëgg koo jël wane ci sama bëre. Ah, ah. bés bi ñu tuddee Pape Abdou Fall loo ci wax. ah yee waaye gis nag ki nga wax nandal mhm. waaye kontaan ci baax Pape Abdou Fall wax dëgg yàlla moom mbaax la ñu a xam ci moom man moom. vraiment mosuñoo déggante téléphone wala dara mais itam wax dëgg yàlla lu baax laa mosa a fekk samay grand di wax ci moom ay ñoom Assane Ndiaye ay ñoom grand Badajon xam na lu baax daal laa xam ci moom. ñu koy ñaanal daal lu mu bëgg lu nekk moo xam yàlla na ko yàlla defal quoi. rendez-vous le 3 loolu lay wax Tidiane. rendez-vous bi le la waa di woo gars yi yëpp. Tidiane de it man awma lu ma koy wax rek. li le 3. bu soobee yàlla dina ñu ma ak moom combat bi moom. bëggoo ci xeex non bi dañu maa yet nee nañu ma bàyyil xeex. il faut nga ñëw di bëre parce que da ngaa mën a bëre. est-ce que yàlla xam na ne naxuma ko. bëre combat bi damay bëre moom wallaahi azim. Hmm. waaw di woo waa Bawol yëpp. di woo waa Kër Ndiaye loo xam nga waa carrière sil sama gars yi mbawar mbawar yi yëpp. maa leen di woo ñu ñëw jàpp ji xam nga ay borom baax lañu yàgguma foofu mais xam nga dañu maa jël def ma comme seen bër. waa di woo waa waa Medina waa Refane ñëpp daal maa leen di woo ñu ñëw jàpp ci nañ ñëw duel ñu stade bi rek loolu lañ leen sant. Mhm. waaw ñun moom leneen li si ginnaaw lépp pare nañu ci quoi problème mu stade bi la ñu laal lañu ñu sax ak ñoom supporters yi ñëw leen ñu jàpp Tidiane Faye daan ko le trois juillet loolu la ñu bokk moom la ñuy ñaan yàlla yàlla nañu ko yàlla defal. mbaa dina yombé ni nga jàpp Tidiane Faye daan ah, ñaan rek <laughs> waaw dañuy ñaan rek si yàlla waaw dañuy ñaan si yàlla rek xam naa ne ndaanaan la yàlla xam na ne Tidiane Faye dama xaw yàgg naa koo seetaan. suur bi muy daan saguwaar noonu mboot boobu noonu. Hmm. boobu mu ma fekk Sandaga may ambila barke Seydina Mohamed Touba Sandaga laa seetaanu combat boobu. Hmm, nga yuufu waaw combat boobu maa boobu foofu laa ko seetaane kon Tidiane xam naa ne béykat la. jërëjëf waaw li ma ci soxla nag ci gars yi pour ñi nga xamante ne ñoo ma sob hmm. seeni ñaan laa soxla mais soxlawu ma conseil wala dara parce que Tidiane man xam naa ko bu baax. xam naa lu mu mën xam naa lu mu mënut man mi ko yàgg di seetaan kenn gënu ma koo xam. ñaanal leen ma ci rek ma daan ko kese laa leen sant. kon mbokk yi egg si nañ ci cëppaandaw li di ñaan rek waaw ci daan loolu yow damay yokk leen di tuuti rek di la jàmm gën ci kam ci combat bi ñëw mars incha allah rabbi bu jàmbu kii incha allah a rafet yàlla baax fa ñuy daaneele fa la taw bi commencé sóob eh, kon jàmm rek nar am eh, merci d'avoir suivi Malick maa ngi sant nag sama gars yi ma àndal ñoom Abou Dior nii Malaw Mbay maa ngi koy sant bu baax di sant Pa Moussa waaw ku ma limul daal damaa juum ñoom sama gars yi non dinañu am yeneen jotaay jërëjëf présentation la woon rek kon drapeau Pape Abdou Fall le juillet la Pape Abdou delloo ko les éleveurs à très bientôt